asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk ñu suivre ci Equivox TV maa ngi leen di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen euh, tey nag ñu ngi ci li nga xam ne moom mooy bésu mercredi maanaam àllarba àllarba tombeeg 3 novembre 2021 li may def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu de seen seetaan yëglikaay li ñu di juddikaat ngeen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. mercredi 3 novembre 2021 dinañu ak yéen ci yëglikaay sunu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di sunu lamb tey xëtamu njëkk lëm ca xëy fësal bokk na ci ka nga xam ne nii moom moo di tarki ndaaw jàmm gën bi ñu naan ko setta mu nga nag yor ab balam mu mel ni ki nag koo xam ne daal ci wàllum contact daal ca la ne ba yaram wa tàng waaye yëglikaay ba daal ne na ko setta day boo bëggee dégg-dégg daal fi nga jëm ci Papa Sow jàppal ne ci danse piir pire pire ca nga jëm ndax nag yëglikaay bi la tax tey mu xëy ñëw wax lool ci setta na boo xoolee Siteu defet ci la jógee digganteem ak guy gi Siteu ñetti at a ngi nii mu toog ko bëriwul moo tax yëglikaay bi jàpp ne daal maanaam li li am ba des daal Siteu moom jàppal dansé pire pire ci la jëm ci digganteem mag ka nga xam ne nii moom moo di Papa Sow yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ne ki noonu moom Siteu nag ka mu bokkal ab écrit muy ka nga xam ne moom moo di Quench bu bari ñi yëglikaay bi xëy na tey war ñu adversaire am muy double moteur yëglikaay bi nag la mu xëy daal Bul Matar daal fi mu nekk nii la mu teg bëtam nee na mooy fukkili ndamam ci làmb ji yëglikaay ba mu xëy tey ñëw dina ko wax combat ba nag mel ni ki nag muy diggante Double ak Quench moom dimanche jii nga xam ne ca jëm lay doon ci arène nationale di la 7 novembre beneen combat boo xam ne nii moom combat dansé pire la yëglikaay ba wala boo combat technique yëglikaay ba xëy na tey dina ko wax ka nga xam ne nag moom moo wax loolu ca combat ba moom moo di Ousmane Diouf ma ngeen xam mu nekk RDV te di yëngutu ci wàllum làmb muy combat ba nga xam ne moo war a dox ci diggante Xaddaafi maanaam Duudu Saane Duudu Saane ak ka nga xam ne moom moo di rhinocéros mu mel ni ki daal combat boobu moom combat dansé dëgg-dëgg moom la doon yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di wax lu mel ni ki noonu moom sunu làmb leneen loo xam ne nii daal maanaam yëglikaay ba xëy na tey ñëw dinu ko wax muy lu jëm la nga xam ne moom moo di wàllum drapeau chef de l'état ba wala boog wàllum drapeau CEDEAO ba nga xam ne daal réewi Afrique yi ñoo ko war a seq te bu war a commencé nag suba ci alxames ji fii nga xam ne moo di ci nag ndakaaru yëglikaay ba xëy na tey dalal seen entraîneur muy ka nga xam ne moom moo di Ambroise Sarr Ambroise daal ne nan la mu la la ñu gën a soxla ñoom waa Sénégal wala équipe ba jàppal bokk na ci publique ba nga xam ne daal ñoom ñoo di ñooy ñëw di seetaan ne daal public ba nañu ñëw dooleel leen ba mel ni ki nag yëglikaay ba xëy na tey wan ñu juróom ya nga xam ne ni daal ñoom la ñu tànn ñu fas yéene gàddu drapeau Sénégal défendre ko yëglikaay ba xëy tey ñëw wan ñu ñu mel ni ki noonu ba fa gi tamit maanaam mu mel ni ki moom xëy na di wax ca lu mel ni kii noonu nee daal boo bëggee dégg dëgg daal wàllum expérience bi ak talent bi moom maanaam danañ ko wane ba mu mat sëkk wala boog nañ ko privilégié ngir boo boo xamee ne maanaam bëgg nañoo gagné la nga xam ne moom di tournoi bi nga xam ne moom mooy bu sedd yaaw bi mu mel ne que nag ka nga xam ne moom moo di Ambroise ba tey ci yëglikaay ba wax na ci loo xam ne nii daal maanaam génn ca sedd yaaw booba muy wàllu làmbi dóor ja bu bëggee dégg dëgg daal ñaari mbër la xëy tey dinu wax ca ñoom maanaam na mu leen gise muy Balla Gaye numéro 2 ak rakk ja Sa Thiès moom Ambroise daal la moo xamle ne na wàllum technique moom Balla Gaye de da cee duwee maanaam daal ku ci doy waar la tey itam lu mu am la ba doyal ca sëkk-sëkk maanaam technique ku bëre ak xam-xam ba rakk ja Sa tamit la mu gis ci moom ci ab défaut ne bokk na ci daal la koy indil ay jafe-jafe bokk na ci yàkkamte la nga xam ne moom lay def des fois mën na daal bu amee ay jafe-jafe loola moo ko koy faral di yóbbe nekki noonu buñ fa jógee dañuy dem record record moom xëy na dikkal ñu ci la nga xam ne ni moom moo di ay loo xam ne daal la nga xam ne moo amoon arène national ci dimanche ji ñu génn te Fallou Ndiaye jaaroon fa mel ne ki nag yëglikaay ba daa jàpp ne Mor Kankang daal artiste la waaye tamit mbër la maanaam mbër la moo xam ne daal artiste daal la ko yëglikaay bi xëy tey tuddee yamu ca ka nga xam ne moom moo doon caam gaynde tamit ku ne xamat ko ci wàllum douzième gaynde yi mel ni ki kera wàllaa ma ja fàtte wuñ ko rendre nañ ko hommage ka nga xam ne nag moom événement bu neex booba ba muy am moom da koo rate fekkewu ko moom moo di Bira Sène mi ngeen xam ne daal moom moo jiite lu jëm ci wàllum làmb ji yëglikaay bi moo xëy ñëw dinu ko wax mel ni ki nag bisoo tamit ka xam ne daal moo fa daan jëli bu réeréy bu kenn dootul fàtte daal mu daa mel ni moom moo di Kona Mbaye yëglikaay ba moo xëy ñëw dinu wax lu mel ni kii noon moom record am na leneen loo xam tamit record mu nga xëy di ko wax mu jëm ci wàllum Forza ak Paka la mel ni ki nag ñoom ñaar daal ku ne yaa ngi dig sa morom ay duma yu méttee méttee métti bu ngi yeggee ca seen combat Forza mu fee fas ak Ndakaaru daal la mu xamle nee na ko boo bëggee dégg dëgg yow Paka la maanaam pour coup de yi maanaam corps à corps xeex mu ne su ko man mënta ñàkk am sama diggante ak yow faw daal nu xeexee bu méttee méttee métti mel ni ki nag pakara ne na ko loolu moom yaay bañ maanaam la am ba des daal man ragaluma dara tey itam nag boo bëggee dégg dëgg xeex boobu ngay wax soo ko defee danaa la kurisi jubbanti la ba nga jubbanti ko xoj ba mel ni bant boo xam ne daal dafa dëngoon ñu jubbanti ko kon maa ngi lay xaar mu mel ni ki daal kon fi mu nekk nii lamb ji jax na waaye drapeau bi nag nañ ci bàyyi xel avancé kon waa Sénégal yépp nañu nag takku ba taxaw dem défendre suñu équipe nationale mu jël la nga xam ne nii moom moo di drapeau CEDEAO ba comme na ko tàmmee woon di ko defee jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay tey loolu lañ ñu indil moo xam sunu làmb la moo xam record la muy ay xibaaru làmb muy yëglikaay yi nga xam ne ñoom ñooy yëgutu ci wàllu bind bi ci xalima yi bu ñu ko ubbee nag ak fi nga xam ne moom moo di sunu làmb tey gis ngeen noonu ci écran bi gis noonu sunu làmb xëtam bu njëkk tey li ci gën a fës bokk na ci Siteu moo fa fës tey Siteu l'adversaire de Papa euh, l'adversaire de Papa Sow moo fa gën a fës moom Siteu yëglikaay bi nag wan ñu ko ci aw photo mu nga téye ballon moom Siteu nag sunu làmb dafa jàpp ne ñetti at ngi yu nga xam ne ni wàccul ci géew bi bëree bi muy mujj wàcc ci géew bi dafa amoon defet moo tax yëgle kaay bi jàpp na Siteu si combat danse la jëm diggante ak Papa Sow waaw loolu mën nañ ko waxee noonu parce que lu tax mooy ku toog trois ans bëriwuloo ñu ne déet na waaye te bi ngay mujjee ñëw da nga amoon defet ah nga jëm ci adversaire bu nga xam ne tamit euh, bu toll ni Papa la ah kon si danger la jëm mais nag làmb dama naan saa boo jëlee combat war ko jongante rek jàppal ne moom fa nga jëm hmm, waaw du du doon lu neex parce que li tax mooy eh, ki ngay jonganteel li ngay bëgg lay bëgg li ngay wut lay wut maanaam ndam pour lan pour goxam ko pour quartier am pour boppam pour ay pour ay soppeem pour ay fansam moo tax mu nekk bés bu nga xam ne nii ah yàlla nañ ko fekkee te tal ko Pape du faal jaar fa si ta Papa Sow di combat boo xam ne macha allah yàgg na yoon lool waaye nag incha allah rabbi li olof di wax rek naan bu yoon jeexul waxasul di jeex moo si am euh, d'ici quelques temps bu soobee suñu borom dinañ ko suufle ñoom ñaari ñu sëgg bëri ñu xool fu ndam lay ñibbi day dem jàmm gën wala day dem parcelle loolu yàlla nañ ko fekkee te tal ko baat suufle ba génn seen diggante ñu xool waaye combat la boo xam ne daal combat bu metti la tamit parce que lu tax mooy ñoom ñaari adversaires yi ku ci ne euh, gëj nga ci làmb yemoo ci gëj gi nga gëj si làmb mais da nga bi ngay gëj bi ngay mujjee takk ngeen di bëree dañ la daan maanaam Siteu guy gi moo ko mujj daan Papa Sow Ama Baldé moo ko mujj daan kon defe naa ne moo tax combat bi nekk combat bu nga xam ne combat bu daw yaram la combat bu parce que ku ci daanu tamit dina métti lool ci yow waaw donte sport ba il fallait que am ku gaa daan ak ku daanu wala match nul rek yu mel noonu te match nul séentuma ko ci boobu combat mais xam naa ne ku ci daanu moom dëgg dëgg dina métti ci yow waaye nag loolu rek di wax waaw du mën a ñàkk. waaw ñi me fanaan biti ragal fanaan biti faw da euh, laale am bu ñu continuer ba tey beneen keneen ko xam xam ne nii moom moo si tañoo bokk même écrit muy Queens bu bari Bargny adversaire am ngeen di gis noonu muy double moteur bu rëbës double moteur nag gis ngeen ko ci bonne presque gis ngeen ko mu wax ci Equivox TV euh, double moteur moomu nag yëglikaay bi ne na moom ah fi mu nekk nii fi mu teg bëtam mooy daal jëm ci fukkeelu ndamam maanaam loolu la teg bëtam fi mu nekk nii moom double moteur fi mu nekk euh, loolu mooy gis-gisam moom la bëgg fukkeel ndam bi nag fi mu ko mën a amee mooy ci Queens loolu nag dimanche ji nu jëm lay am di la 7 novembre waa am production jaar fa ñoom Baba Diaw muy bés boo xam ne nii itam bés bu jar a bàyyi xel lay doon ndax lamb la joo xam ne lamb ju mag la Queens double moteur combat la drapeau kan Cheikh Ba Messi bu Medina ñu ne dit ne waaye nga indi ki nga xam ne mooy Tmax bu Grand Yoff boole ko ak kan brise de mer numéro 2 bu ah Baba Diaw andi na dimanche lamb ju nar neex waaye double moteur moomu na victoire yi mu jotaam ak benn defet mooy boo xoolee bébé bismillah njëkk a daan hmm? daan ki nga xam ne ni moom moo di lamset yëglikaay bi moo ko moo ko moo ko moo ko waxee noonu daan boytin daan ki nga xam ne nii moom mooy Zé ah? daan jëf jël daan ki nga xam ne moom mooy Boy ñaa 2 bu bu way école booy école Balla Gaye daan Alioune Seye 2 Alioune Seye junior du moins daan na daan na Alioune junior daan naaru Sogas daan ki nga xam ne ni moom mooy fëgala loolu mooy ay li nga xam ne ni moom mooy ay ndamam defet tamit bi mu ci jot am maam bala numéro 2 moo ko ko teg waaw loolu mooy li nga xam ne moom moom jaar-jaar du bul moteur ci làmb bi mu ci ñëwee 2015 ak léegi muy xale boo xam tamit am na avenir waaye di daje ko nga xam tamit mbër la moo xam ne ah mu jar a bàyyi xel leneen loo xam ne tamit wala beneen combat boo xam ne am na euh, ki nga xam ne moom mooy sunu papa Ousmane Diouf ñu koy nuyu di ko ziar bu RDV moo xëy di ci wax muy diggante Doudou Sané ñu naan ko Xaddaafi ak Rhinocéros boobu combat tamit ku ne xam na ne ñu ngi ko war a bëri ñaari mbër yi yaa ngi dégg muy ñaari xale yoo xam ne li père Ousmane Diouf wax rek combat technique la ndax li tax mooy ay mbëru mbër moom bu fekkente ne dangay ngay bë bëri looy bëri simple ak yooyu sa combat technique dañ ko cay xaar du Sané ngeen di gis noonu yàggul benn combat la gis gu mu bëri ci arène moom Doudou Sané waaye defe naa ne bés boobu mbooloo mu indi arène nationale mu lu doy waar la xalaat naa ne ah di bu continuer ci lii mu nekk day hmm, dina naqareetee ci làmb moom Doudou Sané waaw Euh, borom jof yor ah bu ñu continuer ba tey si li nga xam ne ni moom mooy làmb ji léegi nag dañuy dem ci drapeau CEDEAO bi ak kan le coach Ambroise Sarr moo xëy tey di wax moom Ambroise Sarr mu ngi wax ci li nga xam ne ni moom mooy drapeau chef de bi nga xam drapeau CEDEAO bi nga xam ne suba lay ubbi man nag damay jum di wax chef de chef de l'état rek chef de l'état pour Sénégal mais CEDEAO moom waaw Afrique de l'Ouest moo ko ñoo ko seex drapeau boobu mu war a commencer jeudi maanaam suba ci alxames ji la ñuy def présentation équipe yi ak yu mel ni ki moom noonu maanaam cérémonie officielle bi di bu loolu passé nag di si aju mu ci compétition yeeg yu mel ni ki noonu ñu ñaan suñu équipe nag mu jël ko Ambroise nag nee na moom soxla nañu public bi nag ñëw dooleel leen waaw defe naa loolu tamit dina ci am solo trop maanaam Sénégal yëpp génn dem supporter équipe nationale mu jongante parce que ay gambee nga fa ay Nigéria ay Nigéria nga fa Nigéria nga fa ay Ghana yi dëkk yëpp di ñuy ay Burkina Faso ñoo ñëpp dañuy participer kon daal yàlla nañ ko gagné Ambroise loolu la xëy tey di woote kon na gars yi dem wuyu ji yamu ja moom Ambroise Sarr euh, am na keneen ka wala keneen koo xam tamit wax na ci biir moomu muy euh, Bafa Gueye di entraîneur adjoint moom itam daal ne na li ñuy privilège maanaam li nga xam ne moom la ñuy gën a jox cër ci bés bu ci ci ci ci ci euh, li nga xam ne moom mooy CEDEAO bi moom mooy wàllum expérience bi waaw ak li nga xam ne ni moom mooy talent loolu tamit defe naa ne boo xoolee cinq majeurs yi ñu xëy wan defe naa ne loolu am nañ ko muy ki nga xam ne moom mooy Moussa Faye ñoom Ganja Fama Mamadou Faye ordinateur Boy Faye ñoom ñoom ñooñu ak kan ñoom cinq personnes yooyu nga xam ne daal ñoom la ñu mujj tànn boo xoolee talent moom am nañ ko ba mu doy sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk kon li ci des rek mooy ñaanal leen ah waaw ak ki nga xam ne moom mooy ngóor ñaax voilà ñoom cinq yooyu la waaw muy équipe bu xam ne ni bu ñu bàyyi xel la bu ñu am ci moom yaakaar la yàlla na ngeen gagné CEDEAO bi ak jàmm Ambroise tamit moom mooy coach ba ba mu jógee ci wàllum wala man jógee loolu ñëw nañu wax ci wàllum lambi dóor ji boo xool dafa wax ci ñaari mbër yoo xam ne ñoo bokkoon ndey ak baay muy Sa Thiès ak Balla Gaye mag ak rak bu ci technique làmb Ambroise nee na Balla Gaye daf ci duwee maanaam lu ko ci bopp ba da caa fees dell xam-xamu bëri nu ñuy bëri ak nu ñu koy defee du sama yax nag am ruwaasa xëy wax te loolu tamit defe naa ne lu ñu mën a vérifier ndax Balla Gaye 2 ah euh, wax dëgg yàlla mën a bëreem ñëpp dañ koy wax moom loolu la loolu la yàlla dogal ci moom rakk ja Sa Thiès tamit Ambroise daa jàpp ne li yàq ay bésam bokk na ci wàllum yàkkamti maanaam précipitation maanaam gaawtu des fois du jox bés cëram du liir bés te loolu tamit souvent mën la indil ay jafe-jafe du n'importe quel adversaire ngay jàkkaarloo rek ne hmm? na ko fii jëlee am na adversaire yoo xam ne nag boo jàkkaarloog ñoom waru leen may jàmm mais lépp da nga koy def ci xel mais am na adversaire yoo xam ne nag da ngay sa diggante ak ñoom balaa ngay dafa ja laaj temps tuuti nga réfléchir xalaat ba balaa nooy demee boo xoolee bi muy ñàkk kombaam ak euh, Malick Niang loolu bokkoon na ci daan na fay combat yoo xam ne mën nañ ne daan na ko moom Sa Thiès mais dafa rëcc kombaam ak Zarko Iba Mar Diop kara ku ne xam na ne rëcc la mais fa ko Demba Diop la woon dimanche fa ko Zarko yegg garaawoon na trop te xëy na gaawante boobu Ambroise di sa Ambroise di wax moo ca amoon am na ko yu bëri yu mu bëri am ci jafe-jafe yooyu moom même meeg mook moom ak nee kuréel dund nañ lu mel ni ki noonu waaye nag bon loolu moom xëy na dinañ dina ko gën a ndax léegi Sa Thiès nekkatul xale ci làmb màgg na ci làmb fi mu nekk nii wax dëgg yàlla record la ñuy dem record moom ñëw na ci la nga xam ne nii moom mooy li amoon arène nationale kër dimanche ak Ndiaye production mu mel ni journée bu neex la woon hmm? Mor Kankang mbër la waaye artiste la boo dégg nag yëg wax loolu parce que Mor Kankang day bëri mais moor Kang Kang la muy fecc bu bëree bu balaa bëree la muy fecc neex na Mor balaa bëree la muy bu fay bëree ba pare Mor daal mu ngi daal muy xale bu am avenir nekk école Cheikh Mbaba école Cheikh Mbaba di jara bàyyi xel waaye tamit di ci profité di wax ne Cheikh Mbaba moom nga xam ne moom lañ tuddee école ba di champion boo mag bërik ñoom Tyson nekku nekk di Fass fu ne mu jaar fa xam nga nekk mbër mu mag tey mu nekk di dund à l'étranger waaye sañ ci école école boobu tey di wane ay xale rawatina xale bu mel ni Mor Kankan ñu nuyu ñoom Baye Bada Soum ña nga xam ne ñu may tàggat boobu yëpp école Cheikh Mbaba waaye Mor Kankan daal avenir la lii mu nekk daal bu ci continuer ah laa ngi ci kanamam de waaw euh, waaw loolu moom yëglikaay bi ñëw na ci waaye fan kay jeexal nag mooy Forza la ñoom ñaar nag Gaston Mbengue nga ko tëgg yëglikaay bi ñëw na ci moom record ñu ngay diggante ñu ngay diggante lu méttee méttee méttee ñaari mbër yooyu muy combat boo xam ne bu jara bàyyi xel la ndax na xeex faw mu am danañu xeex faw ay coup am dóorante Pakala ne ko li am ba des mooy man du ma ragal te jàppal ne xeex boobu ngay wax su amee yow dan danaa la dóor ba nga tëddal sa bopp mu mel ni kon foofu itam dina metti ñoom ñaar nag jaaroon nañ fi ca Thiès lig ko ya ko defoon bañ fi jaaree metti woon na torop ndax kera xeex ba taroon na yàggoon na waaye faka la mu mujj woon yóbbu ndam la kon xam naa nag te ñaari njool lañ dañuy daje ci kaw faw bagaar am moom balaa bëree am waaye ñoom ñaar tamit ay mburu lutte simple lañu ndax li nga xam ne mooy dara chef de l'état ak yu mel ni ki noonu équipe nationale bi ma doon wax léegi paka la yaakaar naa ne jaar na fa yaa ngi dégg jot faa sax nekk capitaine yaa ngi dégg kon defe naa ne ñaari mbër yi moom Euh, est-ce que Forza tamit jaaru fa mu ñaari mbër yoo xam ne techniquement mën nañoo bëri waaye tamit dañuy xeex kon loolu di lu bés boo xam ne mu ngi waaj ñëw waaye daal li ñu leen di bàyyiloo xel mooy dimanche le 7 novembre ak Jam Production muy bés boo xam ne bu jar bàyyi xel la di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm képp ku ñu suivre rek maa ngi lay ñaanal jàmm ak foo mën a nekk Awa Diop du ma ko fàtte depuis Touba di ko nuyu di nuyu waa groupe baax yëpp ñoom Massamba Dieye ñoom Soura Malick Lamine bu Ama Sène Isa yéen baa ngi leen di béggee calki bu Balla Gaye 2 ah ñëpp group baax bi yëpp maa ngi leen di béggee Aliou Dramé ah, bu parcelle te bu ñu nee parcelle ni Modou Lo moom tamit maa ngi koy béggee bàyyi laat bu armee ñoom ñëpp béggee naa leen di nuyu li nga xam ne tamit moom moo di képp ku nga xam ne daal yaa ngi bàyyi làmba xel waaye tamit soxna Asi depuis Nouakchott maa ngi koy bu di nuyu tamit 100 pour cent Babacar bi maa ngi leen di béggee ñoom jigéen ñoom Cédric ñoom Grand Laye ñoom Pape Ndiaye Saliou Sarr ñoom ñëpp Bakary Ba naa leen di nuyu tamit fans club Equivox ak Babacar ñoom Adama Ndiaye ah ñoom ñëpp maa leen di bëggee ñoom Cissé Ngari ah Kéba Dramé yéen ñëpp bëgg naa leen ah Baye Djili yéen tout Omar Saliou tamit du ma ko fàtte ay dina tamit Jibi bàmba di ko wax mention spéciale vraiment taxaw bi nga may taxaw yal na la ko yàlla fay yow Jibi Bamba maa ngi lay ñaanal yàlla yal na la yàlla aar sàmm la barke sa liggéey barke yonent bi sallallahu alayhi wa di leen jox dig daje suba incha allahu rabbi